oui am na solo grand salle mm. koo koy grand salle. Mm. Abo Fiw yow tamit euh, combat bi ban jàngat nga ma ciy indil. waaw ci double moteur ak ki nga xam ne moom mooy bu neex. Mhm. avant tout sax dañuy woo amateuru lamb yëpp xam ne lamb amateur moo am dimanche lamb amateur muy journée bu doy neex boo xamante ne nii mhm. parce que génération ñoom la grosse mu mhm. jamoo toppoon seen ginnaaw ak ñoom kéwal ñoom wulli de am tardement bu rëy rëy am tardement bu rëy rëy ci biir lamb mu nekk champion boo xamante ne nii ci ñi dàq bëre biir yoof ci la bokk waaw parce que mbër la moo xam ne bu jekkee bëre bu jekk dee bëri parce que boo ko xoolee moog su lay topp numéro 2. su lay topp numéro 2 ah. pëtaxlu na ko. Mm-hmm. mu gàll ko tànk bi rof ko caxabal. song na mbër daan ko mbër jël si na ko mu daan ko. Mm-hmm. kon ça veut dire que la. Mm-hmm. maanaam moom dañ koy teg fële ci wàllu weccet bu sew bi ci wàllu moom lañ koy jox. moo ko double ma non boo xamante ne ni parce que boobu ñoom ñaar bokkuñu ni ñuy bëree. lu tax waaw parce que kii Modja. champion la boo xamante ne ni bu jàppal ba day bëri géñëw. champion la boo xam ne day song ci ay tànk. ma moto day dëbbu col di naax di plaqué mm. mais mbër la moo xamante suma kanam la nekkoon ma kanam la jàngee bëre parce que moromu ñoom Serigne Ndiaye numéro 2 la mm. Mm. day day bëre wet day bëre wet parce que moom nekkoon na écurie Fass mhm. mais après Fass dafa saturé mu génn foofu dem Rëbës mhm. te bul fàtte ne combat bi moom nee na moom mooy capitaine u Rëbës Ndakaaru da kay la wax waaw capitaine ah. Ndakaaru Ndakaaru kay jaar Rëbës taq fa ay drapeau double moteur yu bëree bëree bëri nii nii nii kon ça veut dire que mu ngi préparé mobilisation ci combat mhm. boo xam ne kenn dootu ko naatable ci lamb bul fàtte ne ñaari yoroon a daa parce que kii 19 def arène daanu six fois kii ñaari yoon ci biir lamb muy champion bu mag fausse garde la nak ak garde normal kuy mhm. avantage. ba eh? parce que parce que dañuy ñëkënde ki ki nga xamne moy fausse garde day yobbu combat bi ci loxo ndey jooram ki nga xamne moy fausse garde normal day yobbu combat bi ci loxo ñom dañuy ñëkënde fofu ëmb mais taxaw xex bi mo ja moo ko moom duwul ci kor bi la am loxo droite am bo xamante bu ko dorul modja ja bëri modja du wóor bu dorul bu korup dor ba pare hmm. parce que modja ñew rek ba patak mom ci bir bëre worul hmm. parce que champion la bo xamante bu la bu jappé yow do japp ba pare bu lay bu bu parce que double moteur day dëggu col di plaqué. Mhm. mais plaqué mu Dia ëmb tànk bi nga xamante mooy tànku ndey jooram. Mhm. Balla Diouf xam nga mbër nga mën na koo mhm. mboot. bu koy plaqué dafa war a jël pied gauche bi nga xamante ne moom la moom lay jiital teg ko ci xarale tànku Modja nga xamante ne bu koy yéeg plaqué day dindi li nga xamante ne moom mooy avantage Modja parce que Modja mooy mooy mooy point kii itam wetu càmmoñam mooy point parce que kii benn xaaj la mooy mooy mooy double benn xaaj benn xaaj mooy benn xaaj bi nga xamante ne boo ko ba sa coin si bëgg na ko fa jaar pour daan ko ba sonn mënu ko faa daan champion la bu mag mais Quench ak double moteur du benn ak Modja du ñu benn ah Quench bëri ba dafa diib Modja bëri ba dafa gaaw te ndoxtu bëre bi moo bari. Modja waaw Modja champion la. mais comme taxaw xeex bi rek li may wax. Mhm. taxaw xeex bi ci ci ci ci Modja la. mais mais bu jàppee Double Moteur bu jàppee. Mhm. dafa war a xañ Modja jàpp ba pare mu fexeer loxoom dal Modja parce que Modja dóorekat bu bëggul ku ko dóor la. Mhm. waaw. dóore dafa ko waaw non dóorekat la bu bëggul ñu ko dóor dafa am ñu mel noonu ci biir làmb. dafa am ñoo xam ne mën nañu xeex parce que Modja. arrêt de gauche bu baax la parce que mom la door kewal arrêt de gauche fugu ko droite. daw na sirip ci ndig li. do ko dan tambay pardon wa dan oh tambay wa dan tambay oh. dan gamu gay, mhm. dan champion yoy non nga mhm. dajaleen ci gembu kewal kéwal. Mhm. ah sen dan ay champion yu bari wala mom dam sen dafa japp loxo loxo ndey joor eumbu dam sen bi dam sen di bi dam sen di yëngu loxo do bi koy bi koy. bi koy plaquer di ko xal bu dam sen sa yëgul ne sax euh, mo Dia euh, na. muy champion bu mak bo xamantene tay tardement bu reere la am ci lamb mm-hmm. duwul mu dana tok 3 ans ci biir làmb bëréewul mm-hmm. parce que bu fatale bimu beure bëree Queens ba pare mm-hmm. dafa tok gañu yow am amul combat mo ko Mama Lamine am ci blessure tok lu yag bëréewul mbër nag bo toge lu yàgg bëréewul meun nga manquer repère ci bir lamb mais bo don dem ci école bi di contagi limay wax ne béykat du gëj tol di nga am ay repère muy champion bu mak mais li ci doy war sax moy buubaa bi buubaa biñ ci teftal pop dina ci ñewat nga wax ma ci dara ndax xam nga buubaa xam nga